ak tu Jeune Actu Jeune di ab émission bu ñu jagleel ndaw ñii ci seen rajo Afia FM di leen ko ak tu Jeune di ngeen ko am benn samedi ci chaque quinze jours ñu fas yéene caa waxtaanee mbiri politique éducation société environnement. daañu waxtaanee wàllum entrepreneuriat emploi des jeunes maanaam xëyum ndaw yi waaye it wàllum sécurité di kaaraange. maanaam tous les thèmes relatifs à la jeunesse actu jeune dina am itam ay reportage ay interview jëm ci thème bi nga xamante ne moom la ñuy waxtaane ki leen koy dégtal nag di maam Seynabou Thiam benn samedi chaque quinze jours bu 16h jotee jàpp 17h bu ngeen ci bëggee bokk nag mën ngeen a woote ci 88 628 05 05 88 628 05 05 actu jeune c'est sur la rajo Afia FM 93.0 di euh, nuyu di leen ziar di rafetlu bu baax a baax euh, seen safook euh, teewlu rajo Afia tey émission Actu Jeunes ñëwaat fas yéene waxtaanee lépp loo xamante ni actualité rawatina aju ci ndaw ñi mu góor wala jigéen tey nag ñi ñuy waxtaanee ñoo di jigéen di ci ànd ak ñi di collectif dafa doy collectif boobu nag ci li muy yëngu mooy gën a ñoŋal nekkinu jigéen rawatina ci wàllum politique tey sunu thème tey loolu lay doon nan la def ba fexe ba daal xale yu jigéen ñi rawatina ñu daal di sóobu bu baax a baax ci wàllum politique comme ni ngeen ko déggee suñu bande annonce ñu si ànd ak collectif ñoo day seen lëkkaloo ak rajo Afia FM émission bi tey ñu ci ànd ak ki nga xamante ni moo di faatu Ba nekk juriste consultante spécialiste en droits humains nekkit membre ci collectif dafa doy boobule. Euh, suñu beneen invité bi nga xamante ni tey euh, war nañ ko amal mooy euh, adjointe mairie bu Grand Yoff du ñàkk si kanam tuuti moom dinañu dàpp ci biir émission bi kon di wax rek mbokk yi kon saa su ne ni ñu koy defee yéen nit mën ngeen bokk si émission bi ngeen defee 88 628 05 cent vingt 628 05 05 waaye laataa loolu dañuy bàyyi ki nga xamante ni mooy suñu invité di Fatou Ba mu daal di nuyu suñuy auditeur Euh, merci beaucoup Mame sey maa ngi lay nuyu di la sant maa ngi tudd Fatou Ba nekk juriste consultante euh, nekk spécialiste en droits mm-hmm. euh, di teewal fii tey sunu collectif dafa doy mi nga xam ne day xeex si lépp loo xam ne ay xoqatal la yu ñuy teg jigéen yi ak mm-hmm. xale yu jigéen yi ndaw ji mm-hmm. jërëjëf euh, di ko jaajëfal moom Ndeye Fatou Ba di ñuy tàmbali ak moom laa suñu beneen invité di ñu dabani di euh, Ndeye Rosalie Diop nekk adjointe mairie bu euh, Grand Yoff Ndeye Fatou Ba bu ñuy ñëw ci collectif bi nga xamante ni yow ci nga bokk muy collectif dafa doy tey dafa doy bu ñu def présentation collectif bi lan nga ñuy wax voilà merci beaucoup encore euh, Mame mm-hmm. donc euh, tey sawar naa fi tool lool di fi too teew pour euh, wax collectif bi naka la def ba juddu. Mm-hmm. collectif bi collectif bi dafa doy mu ngi juddu en 2019 ndax euh, ñëpp ñu ngi fàttaliku dafa amoon benn semaine ñu gis ñetti xale yu jigéen yoo xam ne dañ leen a sàkku woon ba pare rey leen kenn ku ñu njëkkoon na sàkku mi ngi nekkoon Thiès. keneen ki nekk Tamba te si même jour bi après ñu trouver beneen femme boo xam ne dañ ko fekk euh, sol yére ñu rey ko fële sa wakaam mhm. donc si la ñëpp am indignation ne lii dafa war a doy dafa mhm. lii waratul am si biir réew ndax jigéen lii du war ñu ko teg si kawam donc si la collectif bi def benn sitting sitting bu mag boo xam ne place de l'Obélisque nañ ko defee woon mm-hmm. nga xam ne organisation euh, féminine yëpp ngi fa woon ñi nga xam ne dañuy euh, ñongal jigéen ñi nga xam ne dañuy xeex métit yi ñuy teg jigéen ñi ngi fa woon activistes yi ñi ngi fa woon euh, act ñi nekk tamit ci femmes yi nekk ci réseaux sociaux yi tamit nga xam ne tamit seen wàllum tamit ñi ngi koy def ñu ngi koy bay ci waar bi ñu ngi fa woon mm-hmm. ñu constitué wu woon benn collectif ñu def euh, entendre sunu voix ba pare jàppale nguur bi ba mu indi loi sur la criminalisation du viol. d'accord kon ñi xeex euh, criminalisation du viol euh, du viol yéen collectif bi ci la bokk. ci la bokk. Mhm. dañoo ñëwoon amoon na yàgg na am ñoo xam ne société civile yu bari ay femmes yoo xam ne ni ngi loon xeex pour am loi boobu. Mhm. fan nag ñun tamit ñu ñëw bay si suñu waar. ba mu tombee nag. ñu voté loi boobu ba am ko tey. Mhm. Euh, léegi nag ngeen nekk ci benn projet boo xamante ni euh, ni ñi ngi ko dutee féminisation de la politique maanaam euh, politique ñu ràññee ci bu baax a baax jigéen ñi lan moo tax ngeen taxawal projet boobu. voilà projet boobu mairie bu baax soloon bi nga xam ne dafa bëgg ñoŋal jigéen moom moo ci ñëw lëkkaloo ak association des femmes juristes. Mhm. bu nekk partenariat boo xam ne dafa am ak institut des inégalités ñu boole ci tamit réseau Siggil Jigéen ak forum civil forum social Sénégal ak collectif dafa doy ak femmes élues yu nekk Dakar. Mhm. ñu def benn projet boo xam ne pour ñogal jigéen la pour fexe ba seen représentation ci biir wàllum euh, politique ñu ñu mën ko matal sëkk. Mhm. ba nga xam ne instance de décision yépp jigéen yi am fa wàll toog fa comme góor yi duñu fay toogee di bu ma ko bum mm-hmm. euh, euh, di euh, fàttali ñi ngi si seen émission Actu Jeunes te ñu dalal ñu di waa collectif dafa doy soxna Fatou Ba moo fi teewandeegu moo nekk juriste de consultant di juriste de formation nekk consultante spécialiste en droit humain di xaarandi suñu beneen invité du ñàkk dinañu dàpp léegi ni si mission bi Fatou Ba bu ñu tuggee carrément ci thème bi Euh, mooy nan la ñuy fexe euh, ba jigéen ñi rawatina xale yu jigéen ñi euh, soobu bu baax a baax ci wàllum politique rawatina ci élection locale yi nga xamante ni moom lañ dëgmal et moonte ni de bi la yoon gis nañ taxawaayu jigéen ñi ci liste yi nga xamante ni génnagum na jëm ci élection locale yi. waaw politique wàllum politique ak xale yu jigéen ñi tamit suuxe na lool ndax chaque fois élection buy ñëw. débat boobu dina posé wu. Mm-hmm. parce que lu ñuy ràññee mooy jigéen yi soobuñu ci biir politique bi bu baax. Mm-hmm. lu tax loolu xëy na dafa am ay raisons yu bari surtout xale yu jigéen yu ndaw ñi. Mm-hmm. nga xam ne xëy na politique intéressé wu leen nga xam ne tamit seen famille bu ñuy évoluer politique tamit duñ ko fa waxtaanee. am na tamit école bu ñuy jàngi politique tamit duñ ko fa waxtaanee tamit doo gis benn yoon ci télé yi walla ci euh, rajo yi. ñuy def ay débat politique yoo xam ne dañ ko dañ ko féetale xale yu ndaw yi mm-hmm. tamit euh, chef euh, parti yi leader yi bu ñuy toog di waxtaan di wax ci affaire de politique seen phrase yi déjà walla seen réponse yu leen di posé dafay gudd ba xale yi duñu ci mën a capter dara ñoom jàpp nañ ne que li ñuy wax concerné wu ñu leen parce que jàpp nañ ne booleew ñu leen ci ci ci biir politique bi ba mm-hmm. amuñ ci yoon mm-hmm. te loolu nag war nañu xool lan mooy def loolu war nañu xool tamit naka nañuy def tey ba xale yu jigéen yi nga xam ne ñëpp ak foo munti nekk ak foo munti bokk nga mën a suubu ci biir politique bi te politique bi wax la ne tamit politique bi am nga ci wàll. Mm-hmm. waaw est-ce euh, du du du ragal parce que politique gis nañ ni euh, milieu boo xamante ni góor ñi ñoo ci ëpp luñ leen di gis est-ce que euh, jigéen ñooñu lay rawatina xale yi du ni euh, dañoo ragal euh, moo tax duñu nangoo soobu ci ci politique bi. lu may wax rek ragal tamit mi ngi ci parce looy dem di ci dugg te xamoo ci dara da ngay ragal mm-hmm. waaye buñ leen ñëwoon initier leen ci wax leen ci di poser ay débat di leen poser ay ay ay question tamit di leen mm-hmm. nee lan mooy politique di leen nee loo leen xam ci politique mm-hmm. xëy na tamit sax dina susciter benn intérêt boo xam ne xale yi dinañ mën a dem gëstu ji ba mën a toog di waxtaanee politique. Mm-hmm. ba ñu mun si bëgg a wu. di mm-hmm. dugg si biir parti politique yi pour xeex euh, seen seen seen i droit. Mm-hmm. aussi am na loo xamante ni euh, dafa taxaw euh, soxna Fatou Ba mooy suñu société dañoo nekk société boo xamante ni jigéen dañ ko relégué au second plan il faut oser le dire parce que à chaque fois dañu jël ni góor daal mooy nekk ci kanam jigéen ñi moom nañ nekk ci ginnaaw est du loolu aussi mooy du mooy reflété ci vie politique bi. jigéen dañ ko relever au second plan tettu nañ ko te bëri na fi mais boo demee suñu texte si jigéen ak góor benn la. Mm-hmm. ñoo yem ak ak yelleef. moom la ñuy wax le genre. Euh, waaw le nga le genre moom du ñu xool sax sexe. Mm-hmm. mais jigéen ak góor laa wax suñu constitution. Mm-hmm. sénégalaise. dafa consacrer principe d'égalité et de non discrimination. d'accord si alinéa 7 si euh, article 7 alinéa cinq dafa ne jigéen ak góor noo yemi wàll si wàllum voté wala occuper ay fonction wala ñu fal leen kon nag loolu bind nañ ko si texte yi ñu tourné waat sunu état bi Sénégal dem fu gën a sori mu dem signer ay tex ay convention internationale ak ay convention régionale benn convention internationale bu ma siy mooy convention sur l'élimination de toutes les discriminations faites au femmes en 1979 mm. sinu état du Sénégal signé na ko pour rek pour ñoŋal jigéen ni ñëwaat si au niveau régional mu dem signer la charte africaine des droits de l'homme et de peuple mm. ñu demaat plus loin ñu ne am na lu des ci biir convention bi parce que jigéen wàll ba mu ci am dafa des ñu ñëw indi protocole de Maputo mm. en 2003 pour rek ñogal jigéen teg ko ci kanam xam ne ko am nga wàll ci biir dëkk mais problème de Maputo boobu aussi euh, yéen jigéen ñi fu ngeen dajee euh, yaakaar naa ne dangeen koy euh, ñaxtu parce que application Sénégal ba tey dafa des des na lu des na lu bëri bëri bëri te pourtant Sénégal signé ne ko ratifié na ko si waaye applicabilité bi moo des mm-hmm. loolu moo causé problème léegi yéen démarche ngeen siy def xanaa di vulgariser di wax sunu protocole boobu waxataana nu mu tudd sax autorités publiques yi. pour ñu xam ne tamit lii moom moo leen war lii dañ ko war a appliquer ndax lii tamit obligation la pour ñu war ko def ndax dañoo ko signé ratifié ko. Mhm. kenn forcé wu leen xam nañ ne pro euh, jigéen dañoo am problème ci biir dëkk bi. Mhm. ba ñu dem signé loolu ratifié ko pour mën see jàppale jigéen. Mhm. kon nag war nañ see jàppale jigéen bu bari bari bu baax a baax. di fàttali euh, euh, numéro serveur bi moo di 88 628 05 05 ngeen mën a dugg ngeen mën a dugg si émission bi wax seen xalaat si li ñuy waxtaanee tey seen émission Actu Jeunes euh, bi nga xamante ni ñi ñi dalal ñoo di waa collectif dafa doy li ñuy waxtaanee mooy fexe ba jigéen ñi rawatina xale yu jigéen ñi dugal seen loxo bu baax a baax ci wàllu politique rawatina élection locale yi nga xamante ni jublu su nañ si soxna faatu bu waxee si élection locale yi gis nañ ni bari na tamit jigéen yoo xamante ni euh, tey euh, déposé nañ seen i euh, candidature amaana sax am nañ yaakaar ni mën nañ leen investir ngir ñu mën a bokk ci joŋante yi ngir jiite yenn gox wala yenn gox-goxaan ci biir Sénégal lan nga gisee tey posture jigéen ñooñu le ak élection yi ñu dëgmal. rafetlu ko rek rafetlu ko parce que jigéen ñi ñi ngi xam leen war. Hmm. commencé nañu di consciente. ne xam ne ñoom tamit am nañu wàll ci biir politique bi. donc euh, depuis 2010 ba ñu siñee euh, loi sur la parité am nañu ay avancées yu bari yoo xam ne jigéen tamit mi ngi ciy gis boppam. waaye ba tey tamit doyul mais jigéen yi tamit ñu ngi jël seen destin en main. pour dugg ci biir politique bi mën a kaasal seen bopp seen i droit occuper instance de prise de décision yi xam ne ñoom tamit ci nañu bokk góor ak jigéen noo yem ci wàllum politique Euh, si wàllum politique ngay wax mais en réalité boo demee ci administration yi euh, ci euh, bureau yi da ngay gis ni ba tey jigéen ñi seen place dafa dafa dafa des carrément dama moo koy expliquer le où se où se situe le problème. bon problème socioculturel tamit mën nañ ko ci poser. structurel. socioculturel. socioculturel. waaw. mooy li ma doon wax sànq suñu société ni mu jàppee jigéen. lu ñu jàppee jigéen la ñoo fonkuñu jigéen. te jigéen ku war a ku ñu war a fonk la ndax bu ñu demee sunu diine ñu ñëpp ak diine boo mënti doon jigéen dañ koo fonk mhm. kon nag war nañu fonk jigéen mhm. tamit di ñaax euh, góor yi tamit surtout góor yi lépp lu ci bëri tamit ñoom ñoo koy def mhm. mais tamit jigéen yi tamit am nañu wàll si loolu parce que tamit da ngay gis tamit maax yow ñu nekk ay jigéen di bëgg ut dara nga war maa jàppale nga ne duma ko def ndax suma la jàppale danga may raw nga dem jàppale beneen góor moo la ko gënal wala nga dem indi leneen nga ne man bokkatuma maay bàyyi ma toog lenn rek mooy bugguma nga jiite ma mm-hmm. tamit loolu tamit war nañ ko xoolaat di am solidarité suñu biir mm-hmm. nga xam ne jigéen bu jóg ne damaa bëgg am lii am compétence surtout compétence tamit war nañ ko euh, xool mm-hmm. tamit même booy yootu dara da nga am compétence boo xam ne am lu nekk sa bopp boo xam ne lii boo ko yootoo bis bu ñu la ko joxee tamit di nga ko mën a matale d'accord aussi am na loo xamante ni nemmeeku nañ ko jigéen euh, bu bu élection yi dee dëgmal lu si ëpp si liñ leen daawoon nemmeeku mooy jox la t-shirt jox la 2500 wala jox la mbubu xartum wala vax nga ànd ak candidat bi tàccu ko est-ce que tey euh, nekk ñu air boo xamante ni wala nekk ñu jamono joo xamante ni loolu dañ ko war a dépasé jigéen ñi dañ leen war a impliquer bu baax a baax euh, wax leen politique bi carrément nan la war a demee mais seulement du ci nekk sur le terrain di ànd ak ay politique waaw loolu lu may wax rek c'est c'est de la vieille école. Mm-hmm. ndax jigéen ñi war nañu xam seen bopp xam seen gëdd. Mm-hmm. xam ne ñoom war ñu fee nekk di tàccu kenn. war nañu fee war ñu fee nekk tamit di def folklore ndax foo gisee jigéen rek. Mm-hmm. lu ñuy njëkk a wax rek mooy tàcc ko fecc. topp si ji si ginnaaw di lay jox ay t-shirt di la kii ngay rassembler di indi li ngay rassembler pour kan la pour góor. góor yi ñoom mun ñoo dem rassembler seen bopp. yow tamit li nga bëgg góor gi lu mu bëgg yow tamit war nga ko mën a bëgg mm-hmm. ñun war nañu dépasser toog di tàccu ak a fecc mm-hmm. loolu war nañ ko dépasser bu baax a baax te il faut que tamit bu ñu dépasser ko tamit il faut ñu sensibiliser surtout surtout maa ngi ab maa ngi insister ci sensibilisation mm-hmm. parce que sans euh, ñu sensibiliser du ñu xam lan moo leen war dëgg dëgg dëgg foog nañ ne bu ñu leen joxee deux mille cinq cent wala jox leen cinq cent euh, cinq mille francs war nañ nga dem jaay ko mu jeex pour ñoom seen jànn wàcc na alors que defu defuñu dara euh, Fatou li ñuy def léegi nii rek mooy euh, am na benn euh, koo xamante ni jigéen la waaye ndaw la vraiment il est très jeune euh, nekk candidat ci benn mairie ci ci ci commune yi dañuy dem ak suñu technicienne soxna Adji May Diagne Balde jëli Ndeye faatu Diagne moom candidate la ci mairie bu Yëmbal Nord kon Ndeye Fatou jëloon nañ intervention bu dee mën nañ ko déglu léegi léegi. dinañ ñëwaat euh, si ndey faatu Diagne mi nga xamante ni euh, dooloon nañ jot euh, intervention mais du ñàkk balaa émission bi di jeex dinañ ko indiwaat kon mooy li ma la doon wax sànq rek am na jigéen ñoo xamante ni tey taxaw nañ temm ngir wane seen bopp ci li nga xamante ni moo di élection yi ñu dëgmal ku si mel jigéen bi ma lay wax booy xool ci ay at amaana amul sax ñeent fukki at mais tey am na Pastef ak takkuwaay boo xamante ni wane na ko ci ci ci ci ci goxam ba tax tey ñu am yaakaar ni wan nañ ko euh, euh, mën a mën a mën a mën a teg kon dañuy euh, dem jëli ki nga xamante ni moo di madame Guèye nekk candidate mairie bu Cambérène madame Diop Mame Guèye nekki candidate mairie bu Cambérène kon ñu daal di ko dalal suñu biir émission allo soxna si. allo waaw. oui madame Labert noo def. maa ngi fi. yaa ngi si jàmm. maa ngi sant yàlla bu baax a baax. d'accord ñu ngi lay dalal si rajo Afia FM. merci maa ngi leen di bu baax a baax. tey suñu émission li ñuy waxtaanee mooy taxawaayu euh, jigéen ñi jëm si élection yi nga xamante ni moom lañu dëgmal rawatina wàllum euh, politique. Mhm. yow tey ngay euh, candidate ci mairie bu Cambérène. est-ce que euh, mën nga euh, mën nga ñëwaat euh, tuuti rek ci li nga xamante nii mooy taxawaayu jigéen ci wàllum politique ak yow nan nga def tey ba am pasteefu ni daal war nga mën a jiite sa commune. Ah, jërëjëf maam Seynabou maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu waa AFIA di nuyu auditeur ak auditrice u AFIA yëpp di leen remercier aussi juste pour ma ñëw ci sa question dafay nekk réponse bu yomb yomb pour man. ndaxte jigéen dafa am taxawaay ci askan bi ci société bi ba nga xam ni politique c'est la société donc suñu waxee politique rek dañuy njëkk a xalaat jigéen man loolu laa gëm ndax euh, jigéen lépp lu góor di def benn pour mën a euh, dem kanam góor jigéen da koy def ñaari yoon kon ñun ñoo ëpp taxawaay ñoo yor kër yi te la politique aussi c'est pour les familles ñu ñoo yor natt yi ñun ñoo yor groupement de famille su ce qui est développement jigéen moom moo ko yor tout ce qui social jigéen moo ko yor et la politique ça rime avec ces deux-là et le développement et le social kon yaakaar naa ni jigéen taxawaayam sa politique su fekkee gëm na ko dëggantaan te am na fulla bi pour mu dem ci kanam dafay yomb ci moom loolu daal bokk na ci li nga xam ni moom motiver suñu engagement mais aussi Cambérène nekk loo xam ni depuis ñu judd ba léegi mm-hmm. euh, dañ ko def sacerdoce que ni fépp koo xam ne commune egg na fa ci lu baax ñun dinañ fexe ba bu ñu yàlla mayee benn taxawaay bi wala yenn at yi dinañ jéem a jël suñu commune yóbbu ko foofu noonu d' accord madame le maire gis na ni parti politique yi li ci ëpp ay euh, góor ngeen di euh, nekkal ngeen nan ngeen di dundee ak ñoom euh, nekk ay góor góor wala mën a wan boppam yow ngay jigéen ñu jàppee la benn nit ku xamante ni ci ginnaaw nga war a nekk dundin bi seen ci biir yéen ak góor ñi ci biir parti ci biir parti politique yi waaw loolu yëpp taxawaay la rek taxawaay parce que li ñu naan uude nu mu la gisee noonu la lay ëwale mhm. parce que boo ñëwee nekk jigéen man je me dis ni question de genre sax man du sama problème mhm. et d'habitude du may bëgg di ko évoquer mhm. damay wax ni lépp gis la lépp taxawaay la dans la vie lépp loo soxla rek euh, si tu as un objectif aussi da ngay jéem a xool nooy def les moyens et nu mu tuddati pour nga man ko accéder maintenant nag bu fekkee da nga jël position de faiblesse naan man jigéen laa di ko wax ñoom tam dañ ciy profité da ngay jàpp ne lii nii bu dee am njàng la boo bu ñu jàngee nga jàng su nekkee ni liggéey la bu ñu liggéeyee nga liggéey ëppalewuñ la dara gis mm. naa nag bu ñu nekkee ci biir kër gi ñu doon ay soxna rek euh, ñu ñu nekk ci ñuy kii waaye daal bu nee ci xëccoo bi la ci place liggéeyukaay mm. wala ci politique bi am domaine bu mu mën a nekk muy sport muy leneen ak leneen laa nag taxawaay rek lay laaj amul góor amul jigéen képp koo xam ne yaa ëpp compétence ci loolu rek boo amee fulla ak fayda bu góor taxawee nga taxaw boo ko foqatuwul ci moom da da nga koy bàyyi ak ñoom loolu moo tax ma ni la lépp loo rek ci àdduna taxawaay la mhm. te ñun nag taxawaay boobu yàlla jàppale nañu ci mhm. ah, personnalité bi présence bi am nañ ko kenn du tagg sa bopp mais nag ah, il faut que rek ñun tabaxaalaale ko ci wan góor ñun leneen dëggantaan li ngeen mën ñoo leen ko dàq man du ma ne li ñu mën mën nañ ko mm-hmm. li ñu mën ñoom ñun ñoo leen ko dàq mm-hmm. man personnellement képp koo xam ne taxaw nga Cambérène nga ni candidat nga te yàlla dafa dogal ni candidat yëpp ay góor lañ man rek maa ci nekk jigéen macha allah waaye ñoom ñëpp ñëpp lu ñu mën mm-hmm. maa leen ko dàq bu dee jàng maa leen ko dàq bu dee politique maa leen ko dàq ndax maa leen ci jiitu ñi ma ci jiitu ci politique bëriwul xanaa monsieur le maire sortant lay doon mais gisuma beneen candidat boo xam ni nekk nga nit da nga taxaw bëgg commune Cambérène nga jiitu ma ci politique bu dee am njàng nag waxaalew ma ko man je suis scientifique te ñoom ñu ci bëri ay littéraire la je n'ai rien contre les littéraires la <laughs> waaye nag kon nga xam ni rek euh, c'est juste rek pour wane ni euh, mbir mi taxawaay la rek mhm. mbir mi taxawaay la euh, li ñuy wër lan la compétence la ñuy wër pour faire émerger nos communes mhm. bu dee jigéen ku jigéen ki am na les compétences gisuma lenn lenn loo xam ne war na ko mun a ragal wala benn complexe bu mu mun a am devant les candidats am mhm. gisuma ko te man taxawaay boobu laa am gis-gis boobu laa am moo tax ci sama kanam ragaluma ci dara voilà quoi mhm. d'accord madame le maire am na solo ñu lay euh, jaajëfal bu euh, baax a baax euh, mhm. kon di jaajëfal madame Mame Gueye Diop nekk candidate Euh, mairie bu euh, Cambérène kon euh, madame madame Fatou Ba kooku candidate la ci benn mairie ci li nga xamante ni mooy élection yi jëm nekk jigéen tey lan nga amoon loo xamante ni moom nga koy wax wala conseil wala suggestion ci li nga xamante ni mooy taxawaay bi mu am. d'accord madame madame Diop lu ma koy wax lu di xanaa di ko encourager ndax fu mu jàpp gis naa ni koo xam ne ko am confiance la ci boppam tamit loolu nañu soxla. jigéen ñu am confiance seen bopp xam ne lu góor mën jigéen mën na ko fukk mhm. ndax tey foo dem jigéen nga fay gis mhm. secteur informel bi boo dem jigéen mu nga fay gis te mu mu wax affaire bu important bu am importance muy compétence surtout surtout compétence compétence boobu muy wax aajowul nga nekk jigéen aajowul nga nekk góor na nga nekk doomu aadama kese mhm. képp boo amee compétence fépp ku mun ti dem di nga dem ku mënul dem di nga dem kon nag di koy remercier si lu mu wax rafet na te ku si jàng ku si ko dégg jàng ci di nga dem fu sore sore macha allah am na solo euh, keneen koo xamante ne aussi euh, dinañ ko euh, jël mu di soxna ndey faatu Diagne moom it nekk candidate ci benn commune ci banlieue bi ñu déglu intervention waa jeune lider yi nga xamante ne li ma leen di conseil rek mooy lenn rek mooy ne nañu gëm seen bopp gëm ne avenir Sénégal ci seen loxo la nekk tey li defar Sénégal ci seen loxo la nekk te dama naan euh, jigéen rawatina ndey école la bu baaxee société baax waaye bu yàqoo société yàqu kon nañu fexe ñun gëm suñu bopp gëm ni li ñuy suur ñoo koy liggéey gëm ni liggéey rek mooy maye du al toppee comme ni ma koy waxee man dama bañ mu al toppee ci boppam laay bañ nit di ko def ndax nit da nga war a gëm sa bopp gëm ne sa société yaa koy defar dama ne bu ñu ko gëmee rek gëm ne ñun li ñuy li ñu mën a li ñu mën a li ñu mën a tax ñu récupérer suñu ressources yi ressources naturelles ñu mën ko récupérer rek moom mooy ne ñun jeunes yi ñu taxaw rawatina jigéen ñi imposer seen bopp te jigéen nag fu mu taxaw imposer boppam dama jàpp ne kenn du ko delloo ginnaaw ku leen nar a doyadi rek li ma leen di bépp jeune fii mooy xam bépp leader boo xamante ni femme nga pare pour pour nekk ci mairie bi suñ la nanguwut a teg place na nga wane sa bopp wane ne yow yaay kan wane yow sa sa capacité daf ci am solo. wane sa bopp wane na yow kat boo defaru société bi gëmal ne société boobu du société buy dox loolu rek laa leen di conseiller di ci di remercier ñi nga di la remercier bu baax ci ci ci ci invitation bi di la wax ne di la jaaf jaajëfalaat bu baax rek am naa kontaante bu baax a baax. kon kooku mi ngi tudd Ndeye Fatou Diagne moom candidate la. fa nga xamante ni mooy di mairie bu yëmbal noor peut-être interview bi ni ñu ko montagé après euh, dafa xaw jaxasoo ak machine moom mooy loolu mais quand même intervention bu am solo la def parce que moom déjà elle est jeune elle est très jeune elle n'a même pas 40 ans elle candidate à la mairie de Yeumbeul Nord euh, mairie boo xamante ni ku nekk xam na ki ko jiita mooy kan am na gëdd boo xamante ni ci wàllum politique am na ko moom en tant que femme en tant que jeune mu taxaw osé ni da koy défier mu nekk mbir moo xamante ni euh, Fatou Ba c'est à saluer vraiment à saluer. Mm-hmm. parce que ren moom dañoo dañoo kontaan ñu ñii jigéen ñi. Mm-hmm. parce que jigéen ji gis nañ gisee jigéen yu bëri yu soobu dugg ci biir politique. Mm-hmm. surtout ay xale yu ndaw. xale yu ndaw nag jigéen yu mag mais ay xale yu ndaw xale yu jóg. ne dañuy jong jongante ak góor yi. loolu moom dañ ko war a saluer bu baax di leen ci encourager te ba pare di leen di leen féliciter di leen euh, wax bonne chance. pour la suite. kon euh, ba tey di fàttali ni yéen a seen émission ak Jeunes tey li ñuy waxtaanee euh, moo di wàllu euh, politique ak taxawaay bi nga xamante ni jigéen war naka si am rawatina ndaw ñi di si dalal kii di Soxna Fatou Ba moom nekk juriste nekk consultante spécialiste en droits humains bokkit ci collectif bi nga xamante ni moo di dafa doy tey ñuy waxtaan ñu amal émission bi si lëkkaloo rajo Afia FM ak collectif dafa doy ba tey bu ñëwaatee suñu waxtaan soxna Ndeye Fatou. li nga xamante ni euh, moom la ñuy euh, waxtaanee moo di wàllum politique ak jigéen ñi ñu daal di jël euh, keneen koo xamante ni jigéen la moom it nekk candidate ville boo xamante ni bu doy waar ville bu bu di madame Aïda Niang bokk bés du ñàkk allo madame la maire. waaw allo Penda maa ngi lay nuyu. yaa ngi ak maam Sey Thiam. Ah, <laughs> ñu ngi ci jàmm bu baax alhamdulilah. alhamdulilah alhamdulilah. alors madame la maire nag euh, liste yeeg préparation yi. ah metti rek ñu ngi xeex ba tey amaguñu résultat mais on y croit jusqu'au bout. d'accord tey madame la maire li ñuy waxtaanee mooy yéen jigéen ñi seen taxawaay ci émi si élection yi nga xamante ni moom lañ dëgg ma rawatina wàllum politique surtout yéen mm-hmm. euh, jeunes yi. parce que mm-hmm. la plupart d'entre vous son des jeunes. macha allah mm-hmm. mu nekk mbir moo xamante ni bu am solo la. tey taxawaay boobu noonu euh, motivation bi lan la waaw motivation bi mooy dañu gis ni euh, surtout ñun jeunes femmes yi mhm. que lu si bëri ci instance de décision yi même pour diriger maire yi ay maire ñoo fa nekk ak ay góor mhm. et que ëpp ñu ñu compétence et que ñun tamit war na am lépp loo xam ni euh, xalaat nañ ko ci société bi mhm. ñu mën ko proposer mën ko doxal loolu moo tax ci année 2014 bi man ma rafetlu jeunes yi nga xam ni dañu nekk candidate à la candidature jeune homme comme jeune femme. Mm-hmm. Euh, parce que li important mooy de démontrer la euh, la la démocratie nit ñi ñëw taxaw ñu xam ni poste yi kenn moomu ko. et que bu ñu yaakaaree ni am nañu plus value wala am na luñ ci mën a yokk ñun ñëpp ñu ñëw euh, taxaw proposé wu maintenant nag groupe bi décidé donc mm-hmm. loolu mooy changement bi e ça montre que ñu doon wax ni peut-être jeunes yi tourné nañu le dos à la politique. xam nañ ne élection locale lu 2021 bi euh, montré na le contraire. Euh, maintenant madame la maire quels sont les défis à relever parce que euh, ñëpp ñëw nañ soobu nañ ci politique bi je gis nañ ko jigéen ñaa ngi ci maintenant quels sont les défis. waaw les les les défis sont multiples mais bi gën a am am am solo mooy présence du jeune yi ci ci ci ci liste yi bi beneen bi am solo mooy tamit bu ñuy def en terme de candidat. mu am assez de femmes am aussi beaucoup de beaucoup beaucoup de jeunes que ce soit des jeunes hommes et des jeunes femmes mm-hmm. loolu na défi la boo xam ne aujourd'hui coalition yi war nañ ko relever parce que gis nañ ci la plupart du temps les coalitions ñi ñuy gën a privilégié c'est les adultes hommes donc de ce point de vue bi par moom j'espère que en termes de choix en termes de euh, réflexion dinañ xam ni en fait jeunes yi bëgg nañu ñëw wane li ñu li ñu mën et que ñu xaw leen xëjal ñu mën a Euh, bokk ci mbir yi man daal yaakaar naa ni loolu mooy défi majeur bi. d'accord madame la maire am na solo di la jaajëfal bu baax a baax te di la encourager euh, ci li nga xamante ni euh, moo di lii di yen bi nga xamante ni moom nga yenn ni di di la ñaanal mu oyof lool si si si nga yendoo ko ak jàmm ak salaam. jërëjëf jërëjëf jërëjëf di fàttali moom mooy madame ay dañoo nekk moom it allo allo madame Niang. allo oui. waa am na loo xamante ni euh, question la bu ñu fi dikkal léegi am na collectif boo xamante ni dafa taxaw euh, question bu ñu fi ñëwal léegi. waaw. Euh, am na collectif boo xamante ni dafa taxaw ngir jàppale leen wala sax ngir gën a ñoŋal jigéen ñi nga xamante ni ñoo nekk ci biir politique di collectif bu ñu tuddee fa dafa doy allo allo dégguma bu baax. ma ni am na collectif boo xamante nii li ko tax a jóg mooy taxawu yéen jigéen ñi nga xamante ni yéen a nekk ci wàllum politique mu di collectif dafa doy. Mhm. est-ce que xam nga collectif boobu. Euh, non maa ngi doog am am am information mais je trouve que collectif la boo xam ne bu ñu ko mettre en place ñëw na au bon moment et peut-être dina mën a aider. Mhm. Euh, femmes yeeg jeunes yi ñu gën a autonome te ñu gën a xam en réalité yan ñooy les défis à relever. d'accord collectif boobu nekk na fi depuis deux mille euh, dix-neuf Euh, te tey ñoom lan àndal si émission bi sax ki leen fi représenté moo di madame Fatou Ba ma bàyyi la ak moom. waaw waaw. allez madame Fatou Ba waaw salaamaaleykum Aïda. maa ngi euh, di la remercier si sa engagement ndax ko la xam la ku am mm-hmm. détermination ak engagement si li ngay def te gëm ko trop. donc di la si remercier di la si encourager di la si jaajëfal. jërëjëf jërëjëf Fatou ñu ngi lay remercier ci encouragement yi. Mm-hmm. tey euh, Aïda ñu ngi gis euh, yaa ngi euh, dugg si. allo dégguma bu baax nag. voilà maa ngi ne maa ngi maa ngi ñu ngi gis ne yaa ngi dugg si biir wàllum politique bi pour jogante ak góor yi ndax c'est pas facile pour jigéen xale bu ndaw jóg ne mi ngi jogante ak mag yi si pour ville de Dakar. waaw c'est mais damay wax rek le cee doon na ko wax naan soyez réaliste demandez leen ko bu ñu toogee rek di xalaat ne c'est facile. yaakaar naa ni li ñu bëgg duñ ko am il faut que des fois ñu ñu nekk ci seen bi ñu xaw leen bousculer ñu xam ni on existe e que droit yi ñu am ñu nit moom la ñu am pour euh, gérer société bi et que ci en termes de mairie moom gestion participative la ñuy wax donc du yomb mais comme on dit rek ñun on va se battre avec les moyens du bord pour prouver nos compétences et montrer que sa mboq nañ ko <laughs> am na solo trop di la mhm. encourager tamit di la ñaan pour xale yi tamit def la référence parce que ku jar a def référence nga ndax sa engagement ak sa détermination merci beaucoup jaajëf di ko jaajëfal moom Aïda Niang di euh, candidate euh, ca ville bu Ndakaaru ne euh, bokk ci Euh, fii di euh, bés du ñàkk vraiment c'est intervention ba am solo boobu nga xamante ni def na ko soxna Fatou Ba kon buñ déggee candidat yi nga xamante ni jaar nañ fi lépp li ñu wax muy mooy compétence mm-hmm. ndax booy xool école ba góor ak jigéen ñoo ko bokk li góor di jàng li jigéen di jàng mm-hmm. école de formation yi ñoo koy bokk université yi pareil euh, kon compétence bi nga xamante ni tey góor ñi am nañ ko pour taxaw même compétence yi la jigéen ñi am war a taxaw aussi wane ko bañ see am benn complexe xam nga compétence ajuwul nga nekk jigéen ak góor mm-hmm. tamit lu góor mën jigéen mën na ko fukk mhm. tamit tey boo demee ci école tamit jigéen ñi noo fa gën a am ay résultat yu baax mhm. tamit pourquoi pas jigéen ñi ñëw nekk au devant de la scène pourquoi, pourquoi pas ñu diriger parti politique mhm. tamit engagement rek la laaj tamit gëm-gëm la laaj parce que lu ñu doon gis avant mooy euh, comme jeunes yi pour ñu impliquer aussi politique bi dafa am fossé bu mag entre jeunes yi ak part ak politique yi leader di politique yi mm. parce que en général si seen discours yi jamais ñu impliqué euh, impliqué euh, gu xale yi xale yu ndaw yi parce que jàpp xale yu ndaw yi tamit jàpp nañ ne politique du pour ñoom mm-hmm. lu ñu leen di wax intéressé wu leen mm-hmm. donc il faut que ñu revenir leen wax leen ne politique tamit am ngeen ci wàll ñu leen di impliqué ci biir tamit message yu ñuy yu ñuy véhiculer ak seen discours yi tamit mm-hmm. ñu ciy boole xale yi pour ñu gën a mën a sóobu ci biir politique bi di wax ni 88 628 05 05 ngeen def bu ngeen bëggee bokk tey euh, si émission bi ñuy waxtaanee wàllum politique ak taxawaay bi nga xamante ni euh, jigéen ñi ñu ngi ko si taxaw na la def ba taxawaay boobu gën a am solo euh, waa collectif dafa doy nag di ci dox collectif bi sax si mbir moomu ñàkkul ni am na ay jéego yoo xamante ni yéen a ngi ko ciy def ngir di waxtaan ak jigéen ñi ci ay politique ak yu ni mel. waaw collectif bi mi ngi def ay activités yu bëri lépp ci wàllum jigéen yi pour seen euh, pour ñoŋal leen ñu ngi def ay activité de sensibilisation ñu ngi def mm-hmm. ay causeries mm-hmm. ñu ngi def ay formation mm-hmm. ñu ngi def ay émission pour rek euh, euh, conscientiser xale yu ndaw yi mhm. surtout jigéen yi mhm. pour xam ne lii tamit ngeen cee am wàll tey képp ku nekk sur la table de la négociation yow boo fa nekku dafa mel ni yow lu ñuy négocier bokkoo ci mhm. donc say say besoin yow mi ko am yow yaa ko yow yaa ko xam yow yaa ko mën a porter donc pour wax ne xale yi pour ñu mun leen a jox leen seen àq ak seen yelleef il faut que si instance de prise de décision yi ñoom ñu mun faa teew ñu mun faa wax lu ñu bëgg wax seen mbébét pour ñu mun ko am considération bu mun a nekk. Mhm. mais pour ñu teew fa foofu it Fatou day laaj ñoom bi ñuy ñuy nangu di wane seen bopp quand mooy li ma wax sànq rek bàyyi làqatu bi parce que jigéen day toog góor toog sax ñu ni euh, ku góor kee wax ko jigéen ki toog moom di déglu il faut aussi ñun jigéen ñi ñu am fit di oser euh, euh, yëkkati suñu kàddu quand il la faut. xam nga lu ma waxoon sànq am na sànq maa ngi la koy wax nee na dafa am benn problème socioculturel. Mhm. suñu aada yi noo ñu ñun avant boo newee xale bu jigéen lan la ñu xam ci xale bu jigéen mooy peut-être jàngi sax yàgguñu koo def mm-hmm. mais xale bu jigéen lu ñu ko xamal mooy toog si biir kër gi dugg si biir waañ bi tâches ménagères yi moom moom lañ la euh, jagle woon mm-hmm. loolu rek nga leen xam donc jàpp nañ ne bu jigéen bu génn si konkon familial yi am na loo xam ne mën na la cee dal mm-hmm. ba famille yi parents yi dañuy ragal pour bàyyi seen doom yi ñu génn alors que dañ leen war a euh, former war leen conscientiser wax leen ne lii ñoom tamit am nañ ci wàll parce que boo demee si biir famille yi kenn du fa pratiquement waxtaanee politique. politique dëgg tamit de même. kenn du fa mhm. waxtaanee politique mhm. donc fan nañu war a waxtaanee politique yéen ñi nga xam ne yàlla ni porteur de voix yi yéen ñi nga xam ne yàlla ni yoon rajo yi wala émission yi ngeen di indi ay thèmes yoo xam ne dañ koy adapté ak jeunes yi mhm. pour ñu mën a impliquer davantage pour ñu mën a xam seen bopp gis seen bopp ci biir parce que tey boo ñëwee di poser question euh, benn jeune ne ko à quoi la politique lan la politique di jëriñ peut-être dafay toog di la xool xamul lu muy jëriñ parce que te politique lu muy jëriñ dëgg dëgg dëgg mooy yow sa ak sa yelleef ba nga jot ci mhm. loolu la peut-être di jëriñ te il faut pour mu am ko nag il faut yow fi ñuy toog di négocier di ci wax di bumax a bubbi yow nga nekk fa mun a bumax bubbi comme ñëpp duñ koy mhm. defee mhm. politique bi aussi euh, soxna Fatou mu war a tàmbalee ci quartier yi euh, par exemple nga nekk sa quartier bul toog rek euh, di xaar ñu woo wala ci lu jëmale quartier bi kanam da war a impliqué wu aussi parce que comme on la politique c'est l'art de gérer la cité donc fi nga nekk muy sa quartier muy sa kër politique fa la war a mën a commencer si ay responsabilités yu ndaw yoo xamante ni yaa nga koy jël loolu mën na la ibbil ay ay ay porte mais boo bëggee ni tey tey tey naa egg au sommet du yomb kon c'est c'est des étapes pas à pas nga commencé ko sa quartier euh, sa euh, commune ba mën a dem sax pourquoi pas ba euh, jiite réew mi pourquoi pas Sénégal am une présidente de la République ah incha allah amin loolu de moom maa ngi koy ñaan yàlla moom mm-hmm. te présidente de la république bu femme moom loolu bu ñu ko amee moom xam naa ne Sénégal soqali ko bu yàgg mm-hmm. parce que jigéen moom foo ko teg moom day jóg day jëm ci biir këram lépp lu mu xalaat rek pour njabootam la mm-hmm. donc euh, comme ni mu koy waxee rek xale yi ñu ngi si euh, espace associatif yi voilà xale yi foofu nañuy gën a mën a évoluer mm-hmm. te en général espace associative yi peut-être duñu fa wax politique donc war nañ jëm jël politique boobu tamit eh, dugal ko ci biir ñoom tamit ñu siy jàngaale di si formé wu tamit politique ñoom xamuñu ko sax mais association yi li ñuy def sax politique la effectivement politique la mm-hmm. parce que politique comme ni nga ko waxee léegi processus la mënoo mhm. jug-jug rek dugg ci biir rek nga ne damay egg au sommet mhm. parce que boo eggee eggeel au sommet te yow amoo xam-xam bi xamoo lan moo nekk ci digg bi xamoo lan moo lay xaar liñ lay liñ la fay xaar yow doo ko matale moo tax nag xale yi dañoo war a dugg di dem par étape par étape mhm. duma ñëw fekk la ne yow mii Mame Seye yow dugg nga ci politique gis naa la nga déterminé nga engagé wu am fa yenn euh, tànk nomb tànk yi ma ne ah mam Seydé gënul ma dara mhm. bu dee jàng tamit am naa ko mais mën nga jàng te doo am euh, yenn compétence yi mhm. parce que loo gis rek jàng la man su ma ñëwee dama nangu war a dem à la base pour jàng mhm. parce que tant yaa ngi nekk ci base bi di jàng di am lu bëri xam-xam bu bëri boo xam ne yow boo xëyee suba ba euh, graver les échelons mhm. bés bi la joxee benn poste de responsabilité mhm. di nga ko mën a accomplir dignement et fièrement et c'est pas pour jeter des fleurs au dames mais euh, parfois dañu joxe ay exemple sax naan euh, communes yi nga xamante ni jigéen yi ñoo ko jiite doo fa dégg ay problème de foncier doo fa dégg problème de corruption booy xool même si jub yàlla def na ni am na peut-être ragal mooy ragal gi ñuy wax si jigéen jigéen am na benn njubte bu yàlla def si ma boo xamante ni euh, yenn euh, dégâts yi comme on peut le sax ñoom à la dan euh, dan koy moytu. lu may wax rek jigéen yàllaa ko may barke. Mm-hmm. jigéen lu mu teg loxoom rek. day baax mm-hmm. loolu moom ñëpp wax nañ ko ñëpp kii nañ ko. Mm-hmm. te jigéen rus na toog def benn affaire ñu ne ko baaxul. jigéen dafa rëy. jigéen dafa rëy. dafa xam gëddam xam boppam moo tax tamit lépp loo xam ne da nga koy jiital jigéen rek affaire boobu dafay dem mhm. tey boo xoolee même jigéen yi ni ji nga xam ne jànguñu tey boo demee ci secteur informel yi jigéen yaa fa fees mhm. secteur boo munti dem jigéen yaa fa nekk mais pourquoi léegi ñoom jigéen yooyu mun ñu am accès ci ci ci espace de prise de décision yi mhm. pourquoi parce que jànguñu mais nit ki nag dama bëgg a wax ne nit ki domaine bu ngay yëngatu mun nga fa dem ba ba nekk fa cadre parce que li ngay def nag dafa la war a soxal ba nga xam ne lii tamit li ngay def nag pour société bi nga koy defal du mm-hmm. pour sa bopp ngay defal mm-hmm. voilà am na solo mu mel ni euh, soxna Fatou euh, daanaka li ñu desal si waxtu euh, bariwul peut-être ñu ñëw rek ci comme madame madame la maire ni mu ko waxee woon sànq les défis maintenant à à relever léegi tey jigéen ñi fan lañ war a mën a teg seen i parce que élection locale yi moom kenn waxatu ko jigéen ñi taxaw nan takku nan dañ si bokk donc li nga xamante ni moo di défi yi pour jigéen ñi nga xamante ni tey ñoo nekk candidate ci ci ci ci commune yi. Euh, défi yi mun naa wax ne jigéen yi war nañu gën a gëm seen bopp. Mhm. Euh, du ma wax ne gëmuñu seen bopp waaye war na gën a yokk. Mhm. war nañu am détermination si li ñuy def tamit bu leen góor yombul dara. tamit jigéen ñi war nañ gën a mën a impliqué wu ci politique bi parce que politique bi am nañ ci wàll. Mhm. góor ak jigéen ñoo bokk yem ci biim réew. amul góor moo moom politique. jigéen moomul politique mhm. jigéen ak góor yépp a bokk yem si biir politique mhm. dépp lépp loo xam ne yaa ngi koy def ba nga xam ne yow dinañ la ci dégg war nga ciy dugg mhm. tamit ah, nañu bàyyi di toog naan awma temps togg baa ngi fii bale baa ngi fii raxas baa ngi fii wala mm-hmm. liggéey baa ngi fii mm-hmm. tamit loo gis rek boo ko utalee temps rek dina dina mm-hmm. di am temps tamit nañu bëgg dañu war a gën a impliqué wu xam ne lii seen yëf la lii tànka tooguñu ci instance de prise de décision yi bépp euh, euh, àq bu ñu am ak yelleef bu ñu am du mën a sotti du leen ko mën a du leen ko mën a euh, respecté parce que jigéen ñi kanam ñoo xam suñuy jafe-jafe ñun ñoo ko mën a wax lu may wax rek ñun ñoo ko xam tey man sama soxla man mii di jigéen yow mii di jigéen xam nañ ñun lan mooy suñu soxla réellement pour mun ko porté mhm. mais góor góor ak jigéen du benn. góor moom xa moom bu demee toog problème am kese lay wax. Mhm. lu ko soxal kese lay wax jigéen seen yoon neewu ci. leen l'essentiel ñoom seen intérêt dinañ ko porter mais ñun dañuy bàyyi en rade te loolu mhm. moo war a jeex jigéen ñi tamit fu góor nekk gu ak jigéen am na fa wàll bañ nañ ko ba suñu constitution sénégalaise moom la wax jigéen ak góor noo bokk wàll si mhm. wàllum politique mhm. nu ñu leen di falee noonu la ñuy falee góor ni mhm. ñuy amee droit voté noonu la ñu amee droit voté kon nag Euh, dama bëgg a ñaaxaat sama wàll sama mborom jigéen yi pour ñu mën a impliqué wu davantage pour rek porter jël seen seen seen destin en main. déjà am na benn problème sax bu xamaa commencé woon di posé wu mooy euh, mbirum Soham Wardini euh, suñu waxee tuuti si si si actualité tey nan nga gisee problème mu Soham Wardini Soham Wardini bi di maire sortante bu ville de Dakar. waaw Soham Wardini problème moom maa ngi naan c'est une c'est une femme qui donc nu ma gisee posture am neex na ma. Mhm. parce que mënoon nañ ñëw di ko xoqatal naa ko lii ak yoo fa yoo mu ne góor laa jonganteel kon nag xaaral ma bàyyi parce que man jigéen laa. Mhm. Mhm. mais boobu léegi mi ngi tenir boo pour rek mën a porter candidature am. te loolu di ko si encouragé jigéen yëpp war nañ jël exemple. te am na ay jigéen sax yu taxaw pour jàppale ko. jàppale ko mais mooy loolu lu may wax ne solidarité si jigéen dafa war a am. sa benn jigéen bu si tolof tolof di xëccoo dara ak góor tamit war nañ koo jàppale. def solidarité autour d'elle pour jàppale ko donc tamit jigéen yi war nañ solidaire war nañ jàppale suñu moroomu jigéen tamit tamit soo am tamit di ko félicité si ci ci posture bu mu nekk rek xam ne moom tamit bu mu bàyyi c'est pas parce que góor la rek la koy euh, la koy lay lay diirante mbagg mo góor la muy jigéen tamit ñun ñaar ñëpp a bokk yam ñu ñaar yëpp ñoo bokk ay ak ak yelleef mm-hmm. donc lu góor mën jigéen moo ko mën euh, fukk mm-hmm. tamit gis nañ ko tamit euh, xëy na lu mu doon liggéey tamit am na si yu bëri yoo xam ne mun nañ ko rafetlu mm-hmm. donc na continuer macha allah am na solo di jaajëfal ki nga xamante ni tey moom lañ doon ah, dalal di soxna Fatou Ba ah, di juriste consultante spécialiste en droit humain nekkit collectif ah, dafa doy ñu bàyyi la rek nga daal di tàggoo. d'accord di la remercier Mame di leen remercier yi ñëpp waa rajo Afia FM si invitation bi ngeen ñu invité dalal ñu fii waa collectif dafa doy mm-hmm. ñu xam ne tey man maa leen fi représenté man Fatou Ba juriste consultante experte en droits humains mm-hmm. donc euh, di ñaan jigéen ñi di leen ñaaxaat rek ne politique bi seen wàll la xale yi jigéen ñi tamit nañu fexe tamit ba impliqué leen ci biir mhm. tamit leader politique yi tamit seen message yi tamit dañu fexe ba impliqué ci jigéen ñi pour ñu ak góor yi tamit pour ñu mën a xam ne ñun lépp ñu ñoo ko bokk tamit lépp tamit Sénégal bu jëmee kanam ñëpp la jëmal kanam mhm. donc di leen remercier macha allah jaajëf soxna Fatou Ba di ko jaajëfal euh, si émission ba am solo bi xamante ni tey def na ko fii si rajo Afia seen ak émission Actu Jeunes ñu si doon ànd nag ak ñii di waa collectif euh, dafa euh, doy di leen jaajëfal mbokki xarit yi si yéen it déglu bi di leen jox rendez-vous incha allah dans quinze jours ba tey seen émission Actu Jeunes ak beneen thème Actu Jeunes di ab émission bu ñu jagleel ndaw ñi ci seen rajo Afia FM di leen ko dégtal Actu Jeunes di ngeen ko am benn samedi ci chaque quinze jours ñu fas yéene caa waxtaanee mbiri politique éducation société environnement. daañu waxtaanee wàllum entrepreneuriat emploi des jeunes maanaam xëyum ndaw yi waaye it wàllum sécurité di kaaraange maanaam.